Thank you. quoi encore j'ai mal à la tête façon bu y a mal à la tête nga jël démb nga trois heures nga ko wala tamit eh quoi encore mon douleur de tête là c'est à cause de vous mais vous là vous ne laissez personne dormir tranquille Maintenant, vous avez laissé le matinal. C'est la nuit même que vous faites des bruits. Hein? Hier, je ne suis pas dormi. Hein? Depuis ce matin, c'est mon tête là qui veut s'écraser. La nuit, vous faites courou, courou, courou, Il y a quoi? Oh, pitié! hmm, J'ai mal à la tête. Je oh. commence pas encore, ça va brimer. Je vais vous dire que ça va brimer. Eh, je vais vous dire que ça va brimer parce que boo or h heure bi li ngay du matin bi ci la petit déjeuner pour tenir journée bi vous nous les musulmans les 4 heures les du matin vous mangez dans cette maison là pour tenir journée vous mangez ici tous les musulmans maman tu es mauvais eh, vraiment, vraiment, tu es mauvais. Même ton mari là est mauvais. Vous mangez ici. Mon chambre là, c'est ici. Vous ne me réveillez pas pour manger. Moi, je croyais que vous parlez, parlez comme ça là. C'est le manger. Oh, maman, tu es mauvais. Pardon, ma soeur. Mmh, abomination. Tu es mauvais. Donc, je vais yow maase bëccëg maase fajar xanaa yow dangaa bëgg léegi sin rasiya bi ñu jox la ko yow doo oor gis nga ni nga toll nii yow boo doon or sax au moins nga delluwaat am taille fil toll niñ toll mais yow bii rek benga chaque jour yaa ngi def bii rek doo retourner yow moom bol baa ngi teg rek yaa ngi gis 5 heures du matin moom mënu la ko yee du ma lekk del muñ ba ngoon gi ngoon gi mën naa la may lekk mais 5 heures du matin y a pas de problème faut me réveiller je vais manger eh si, si je savais que ce manger là mon tête là ne va pas me faire du mal si je mange je bois je dors eh, mais je dors comme ça là et pourtant, hein, ton mari n'a pas dit ça. Hein? Le jour-là, il a dit qu'on doit partager tout. Maintenant, vous mangez la nuit, vous me laissez. Vous êtes mauvais. Abomination. Vraiment, vous êtes mauvais. Vous là, vous êtes mauvais. damaa c'est mon mari regardez quoi. madame Faye beaucoup de bokkuma ci loolu lekk seen de matin, ma tey bokk ci xoolal maa ngi dem marché Je nga surveiller gi mm-hmm. Regardez ces petites fesses là. Combien elle est méchante cette dame là. La nuit, je... Aujourd'hui, là, on va manger ensemble. Raciste. Hmm. Je vais aller me coucher. Mon tête là-bas explosé. Oh, maman. Hmm. jërëjëf si loolu. Ah, yaa jàmm. bien jàmm. yaa ngi am jàmm bu baax. Ah, daal fii nga génnaat. Hmm. chaque jour daal nga fu neex. man di ma rey wuy ma. Hmm. am nga jëkkër. amoo dara sax. ah loolu day daal di neex kon day daal di neex. xam nga ne man dama laa bëgg. wala bëgg ta yalla ta ñu ñu genn fi té kenn du ko yegg kenn du ko yegg sama digënté ñu la man duma sa morom nak nopp sa morom wala bëgg rek de bëgg la ta yalla eh la dégg bëggante ci wéru koor bi la dégg yow tu as fait trois infractions numéro 1 moy ci wéru koor bi ngay bëggante deuxième moy waxtu julli jot demo julli ji nga am ngay tok doxante xanaa di moins sax boo demee bay doxalante nga doxalante ak koo xam si ne sa aas sa morom la. nijaay man selo na sa yow ba ma ñëwee si kër gi ba léegi mayo ma jam ba ma ñëwee si kër gi ba léegi mayo ma jam may ma ma dundu way may ma ma dundu da wax ngay wax léegi damay wax ngay wax yow lay waxal eh jógal eh eh eh eh jàkka man daal wax naa ko lu ma mën a wax. barke Kéem sëñ Abdoulaye Diop xaas su ma moytuwul kii dama koy coow. nga may dóor si kanam woowu bi ci kii nga may dóor si kanamam am na yeneen yoo xam ne du ma ko nangu du ma ko nangu fii sama kër yaay la waaw. ñam si waaw mu bàyyi yow baa jàmm loolu dal jàmm la rek du jàmm waaw fii nga toog ni pour lan la waaw fii danaa la xamal ñaari affaire fii xam nga ñu fiy toog ñi or or a gàlle di sàcc ndox di lekk ñam si mbaadu la sa nijaay di la taxal dafa di doon dëgg fi ngay ñëw di naan si ndox bi di lekk mu bàyyi sama toog bi yëpp sama toog bi yëpp lu ko war sama nijaay ma tooñ sama nijaay moom moo ma tooñ waaw da du ma fekk ma toog du ma fekk ma toog xale bu jigéen boobu ah mu ñëw foofu di ma di ma di ma dóor mu ñëw di ma dóor te sama kër gi kër gi fi sama yaay ak mom waaw mi luwe nit ñi di luwe nit ñi pour man day yondé sama yaay naka de du yondé sama yaay naka de eh, woo yaay eh, ñam si na freinel ñam si li ngay wax ni dara leeragul sama dama lér eh, lér na nañu um kër gi ku ko mom sama yaay ak mom sama yaay ak mom ñam see waaw dégguma li nga wax xatal ma dégg li nga wax mané sama yaay mom kër gi sama yaay cham mom mom kër gi mom mi moo wax sama yaay mom mom kër gi waaw caane ciana men sama nijaay moom mu tus waaw moom fi dara suma yegg iya diko lijeenti ah ndax man duma nek ci keur guñu ñuy luye hmm. kër guñ mom lay nek suma may egg eh léegi di ko lijjanti seen nijaay man yo xam may dóor bo demé nga lijjanti ko nga lijeenti nu ngeen di genné wax nga deug ndax sa yaaju ju dangaaral googu mu moomee kër gi tay wala leeru suba damay génn yow togal melni ko fi tok ma ko lijeenti bo demé dal lijeenti len suba nu ngeen di genné dal ndax naa wax sama yaay bu ñëwee dina len genné fi ci keur gi waaw sama nijaay dotuma dorati man waaw dotuma dorati waaw Benga. ya quoi Ya quoi J'ai un peu de qui. xaalis tout bëgg tuuti dama soxla xaalis C'est un dee na dugal avance ndax qui? pourquoi tu sais mentir hein pourquoi tu sais mentir Jerry? c'est toi le propriétaire de ce maison là. Ouais? où est ta sœur qui est au village. J'ai dit, où est ta soeur qui est au village Tiens, elle est au village. Pendant tout ce temps-là, j'ai duré ici combien d'années chaque mois, je te paye. C'est normal. Je te donne des avances. C'est normal. Je ne te dois rien du tout. Parfois, tu me dois de l'argent. Fais toi, tu n'as rien, rien dans cette maison-là. On t'a hébergé ici. Eh? Tu, tu, prends mon argent, tu le manges, tu restes ta soeur là-bas. C'est ton neveu là qui me l'a dit aujourd'hui. Attends, Tu es hein. menteur, hein? Abenga. J'ai dit, tu es un menteur. Moi Toi-même, avec ta barbe là. Hein? Une grande personne comme toi là. moi, je ne comprends pas pourquoi tu es comme ça. L'argent que tu m'as, tu laisses ta soeur là-bas là. Hein? Tu croyais que ton neveu ne dira rien du tout. Il va nous dire, et je te dis quelque chose hein. Qui t'a dit ça? J'ai dit, c'est ton nom qui a dit ça. Ton neveu là. Comment il s'appelle encore J'ai oublié son nom. Tu ne connais pas son nom toi Niams. Niams. Je sais pas si c'est Niam ou Niampo. C'est lui-même qui a dit ça. Je l'ai entendu dans mes oreilles. je n'ai pas dit, c'est quelqu'un qui m'a dit. J'ai dit, c'est sa bouche dans mon oreille. Niams, C'est entre vous, hein. Si ton neveu là est chien, toi t'es où Tu es qui Loup, tu es le loup. Loup-garou, tu es le loup-garou. Si tu m'attends là, je ne te donne même pas un franc. J'ai dit, je ne te donnerai plus d'argent. Eh, on va voir. On va voir. Hmm. On va voir. tu perds ton argent comme ça, tu demandes. Hein. Et je te dis quelque chose, hein. Si ton neveu là ne fait pas attention, avec Dacho là, je vais la tuer ici, comme je fais à son nom. Espèce de menteur. <laughs> waa ñam si ñam le si léegi mën non qui dama koy eh kii su ma génnewul du du du du ñams ñams hey hey eh eh ba man fay tee maa naaw ah naaw jot na de naaw jot na nag ki faw ma delloo ko dekk ba tout de suite duma sax yag yag yag di xel ñaar ah yalla jeri ndax wor jar na lii bo boo ragal ko taxul nga ngay pas sa kanam gi di di ñangal leg leg leg dog jot leg dog jot ele ele 5 heures kay leg dog jot yooyu. man koy wax koo xamante ne xamul koor man bu ma juddoo fer lañ ma tàggat ci koor borom kër gu ne dangaa woor sa doom bu nekkee xale nga koy tàggat ci koor man boo ma gisee jàll xam ne kuy woor laa waxal benn bu ñàkk fayda ba dee. ah aywa nga mel àll kat. waa ah. a doyee a xam sax fay onze mois nga toog ko yónnee woo ko caane ba douzième mois bi di weeru koor ñaari néeg yi nga koy fayee ko chaque weer di ko dëndëx muy dem xanaa nga war a def fii sabilillah nga yónnee sa jigéen bii nga xam ne benn bu jigéen nga am nga yónnee ko ci waaye boo ñëwee rek lekk ko mu rees nii kaa waa ngi bëgg yow xanaa yow caan su ma amee lu ma koy jox lu ma koy envoyé lu mu koy lu koy may lay doon gis nga kër gi ba ba ma yàlla dimbali ma am terrain mbokk fekk ma ci kenn fekk ma ci xam nga ku ma ci fekkam Ablaye Diop xaas borom xaas li fi nekk lépp moom du keneen nag waaye nag maa maa ngi bëgg a xool say wax nag xam naa ne caane woowu la dañ laa fen te kee fen daa juum sama jarbaat bi la. xam nga sa wax a ngi bëgg a kaare mm. Ablaye Diop xaas jëkkër sumbul ngay wax ah. ndax yëg nga ne dégg naa boo toogee di ko waxal lu dëgg fi nga toog lay toog di la zaab bi sama jëkkër na nga téere maam yàlla yëpp moom la billaahi moom la yëpp moom la waaye nag man li ma metti leen dong la fen yi may fenal ndax ki la ki ma fenal ci yow moo ma ci ci benga benga man mel mi kan ma la fenal ci benga c'est même wax exact loolu nga fekk nii ma di ko kaas fay kër gi yaa ko moom wala sa sœur moom. waay kër gi fay la sant déggoo ma xanaa teere maa ko ñàkk Diop xaas fekk ma fi yëkkatil ma ku ñàkk kër gi nag ma maa nag waaye baax desoon ma jeex na. fexeel ba bu ma wett rek. jeex na fexeel rek ba Ablaye Diop xaas bi ngay tudd ne moo la tabaxal kër gi waaye rek buñ ko vérifié ba ci biir na fekk ne moo tabax kër gi bu fekk ne yaa ak ko bokk. Sénégal ñëpp a baax na man xam naa may def gis nga ñams billaahi mun a mu dellu si kër gi mooy génne naa kër gi mu ñibbi dëkk ba un point un train mu jeex takk parce que man du ma nangu mukk mu yàq sama der fii parce que ñëpp xam na kër këru fay tey nag léegi ah tey ci kër gi la euh, gont bu subaa mën na gont fenn avant sax mu ne dem ba ci biir sax mu ne ma yow mi du ma sa jëkkër c'est lu léegi capable la nit moom bu jëfuree day jëfur rek te jëfur na fi mu toll jëfur na fi mu toll jëfur. yéen a xam yéen a bokk. waaye waaye waaye yow baax naa la boole xaas.